bëri bëri ndax amaana lu yàgg tey la amee ba léegi ak yàgg na fule la mais tey wax dëgg yàlla ñu taxawee bi ñoom xool photo xale yi xool seen way ñu bëri na ko yëgaat émission boobu la ñu ñëw. waaye nag eh, ñi ngi dalal seen jëm ci très bonne forme di waaj a nekk suñu mission bu ànd ak Kouthia xaw ma la Sénégal xam nañ mission bu ànd ak Kouthia euh, gërëm ñëpp nag seen euh, ngeen éngitéw ci mbir bi waaye daal seen ay ngeen gis jàmm bu baax a baax a baax émotion bu bëree bëri ñu jàmm te lu jaadu la ndax li ñuy jot a jaar bëri na yàlla defoon ne nag boobu ba ñu koy téye bu ñëwee fii nag kilifa yi yëpp daje discours yi témoignage yi yi am na fu bari fu ñu yóbbu ñu ñaan yàlla daal xar yi fi jóge yàlla yàlla xaaral àjjana nii doon mujjanteel lu mel nii fii ci biir Sénégal ñu leen gërëm di leen sant di leen invité nag ci suñu añ bi <laughs> É. je então, voudrais é que les, é que les,